والإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوى الغمما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy topp ci MK TV ci jataay bii nga xam ne ñu ngi ko tudde woon mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal mbokk yépp diir bu yàgg day mel ne jataay bi xawoon naa taxawandi incha allahu taala danañ dellu siwaat ci jataay niñ ko doon waxtaanee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba nga xamee ne jot nañoo def fukki jataay ak benn ñoo ngi fàttali mbokk yëpp ne jataay yooyu dana continué waat di jàll nam daa jàll incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh يوم القيامة تاتي الرسل قاطبة والأنبياء